mu xam bu baax a baax kóllëre gi nga xam ne nii suñu waajur séqoon na ko mu di ko doxal bu baax a baax lu ci des rekk xëy na ci man la waaye moom li ko war lépp mi ngi ci ngir kóllëre googu kon sëñ bi ñu ngi lay ziyaare di la nuyu di la ñaanal yàlla mu defal la jàmm te guddal sa fan di nuyu maam Cheikh Ndiaye suñ ko nuyoo nuyu nañ waa dëkk bi yépp nuyu nañ taalibe yépp ndax mom moy chef de village moo fi toogal Khalifa, kon buñ nuyoo maam Cheikh Ndiaye nuyu nañ jabot gi yépp di nuyu monsieur le sous-préfet Mbaysi mi nga xamni ni suñu xarit la japp naa maire ak sous-préfet administration mo leen bolé mom mu togal fi chef de l'État ñu ñu togal fi askan wi ñu war a am ay rapport yu baax a baax buñ bëggee liggéey bi dox waaye gis nañ ay sous yoo xam ne ni ak ay maire xëy na du ñu juboo waaye moom mi ngi fi bëgg def juróom-ñaari at waaye jàpp naa ne mu suñu am benn jour boo xam ne werante nañ ndax euh, xam na liggéeyam mi ngi koy def ni mu waree ñun tamit xam nañ suñu liggéey euh, jàpp naa ne sax am na xam-xam boo xam ne ni dolli na ko ci sunu liggéey ba lu ñuy def dañ koy laaj ba xam lii ñuy bëgg a def yoon la wala du yoon ndax dañ ne kilifa lu muy def na koo seet balay juum kon monsieur la sous ñu ngi lay sant di di Saliou Mbaye wax di la ñaanal yàlla yokk say ndomba waaye may la wér ak gudd fan ak sa njaboot yépp ñi ngi nuyu simit Saliou Mbaye di suñu mag di ku baax di ko xam ne nii Daaru Njaay rek ko ñor bi lay doxal lay waxal kon Saliou yow tamit ñu ngi lay sant ci sa xel mu rafet ci sa dal ndax lu jafe dal te yàlla def na am nga ko yàlla na la yàlla yàggal di nuyu aussi suñu ya nga fi muy soxna Fatou Dia ak Serigne mbake sen ñong leen di nuyu ñom timit sonu nañ ci liggéey bi bu baaxa baaxa baax di nuyu délégation bi ñu àndal yépp voilà di nuyu délégation bi ñu àndal yépp suñu premier adjoint yi ak deuxième yi ak mbooleem conseil yi <clears throat> tey nag sëñ maam Cheikh ah, waa daayira bi aussi ñu ngi leen di sant ndax li ñu leen defal jàpp naa ne asaka yi yéene ji la kon li ñu bëggoon xëy na yàlla mayuñu lépp waaye asaka yi yéene ji rek lañ def waaye suñu sañoon lépp lu nga xam ne nii soxla ngeen ko yittewoo ngeen ko duñu ko bokk kenn ñun ñooy def lépp waaye nag ñi ngi ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba bu ñu fi dellusee ñu man lu ëpp liñ manoon euh, tey nag bisu ñaan la bisu ñaan la allo ah, ma ne tey bisu ñaan la ndax ki ñu fi dajalee mooy Cheikh Darou Assane Ndiaye ñëpp xam dayoom ci sëriñ Touba Cheikh Khadimul Moustapha ñuy ñaan ci bis bi réew mi am jàmm am dal yàlla defal nu ay xéewal ndax nawet bi dañuy sant yàlla bu baax a baax ndax ku fekkee muccul waaye xaw naa am tuuti ay jafe-jafe waaye nag sunu boroom moo ko bëggee noonu ñu jàppee ko def ko bànneex te gën a euh, dëgëral laxasaay yi ngir ñu mën koo jàll sëñ maam Cheikh man su ma doon wax damay wax ne sama sëriñ nga sama xarit nga ndax yàlla dafa def nga doyloo ndax loolu dafa jafe bépp jafe-jafe boo am ci ñi koy njëkk a yëg laa nga am yaakaar ci man te di ma ñaanal ñaan goo xam ne ni sa naa ni sa xol nga ko tibbee man tamit ma lay ñaanal yàlla yàggal la fi ndax sëriñ bu mel ne yow yombul ndax barki démb mi ñu defee CLD bi dama ko wax ne leen sëriñ yi nekk mbéjéen day ñu sëriñ yu mat a fonk lañ ndax bu ñu duggoon ci politique bi di wax di dem ak a ñëw mën naa am mbir mi dana gën a yomb waaye ñun sëriñ yi am jàng alxuraan lañ am xam dem tool di dunde seenu ñaq loolu nag yombul a ah, ci jamono yi tey jii nga xam ne nii ah, mbir mi dafa yëngu kon boog ñu ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax di sàkku ci yéen ñaan dëkk bi nag xam nañ bu baax li nga xam ne ni loolu la yayoo ndax bis bu ngeen ñu gisee ak bu ngeen ñu gisul xam leen ne bu ñu xëyee ci soxla yi rek lañ nekk yàlla nag des fois day dogal dogal boo xam ne nii dañ ko war a nangu ndax juin 2021 dañ ma envoyé benn liste ne ma dëkk yi de lañu war a taal mbéjéen ma xool ko mu toll ci fukki dëkk ak benn dama kontaan lool waaye bi ma ubbee liste bi euh, gis naa ne liste bi ma bindoon indi nañ ma ko ndax bi may bind bi ma jiitalee Kër Mor Abdou su ma ci tegul Mérina Sarr Daaru Njaay laa ci ndax ñett ñooñu ñoo doon priorité ci man ma toog cee teg ay yeneen dëkk yu bari waaye nag yiñ ma jox Daaru Njaay ma nga ci biir moo bari jàmm Cissé waaye bi ñuy defar entrepreneur yi bi ñu ñëwee ne ma ñun dëkk yii lañ war a defar ah ma gis bari jàmm bokku ci Daaru Njaay bokku ci ma ne xëy na affaire marché la affaire état la mën naa jox entrepreneur bi ne ko liggéeyal yee kee liggéeyal yee loolu laa njortoon ne moom la te effectivement pour Daaru Njaay loolu la ndax euh, ñetti weer ci gannaaw am na ku ñuy wax jàlloo woona ma ne ma man maay defar Daaru Njaay ak fas Njaay defe naa ne ñëw na ci sëñ bi euh, def visite de terrain bi ba xam dëkk bi kon ngeen xam ne beneen dogal a ñëw xoola bari jàmm gi nga xam ne yaakaaroon naa ne dana am entrepreneur ba léegi amagul entrepreneur donc ñu xam ne courant bi moom am na yaqin ne balay yàgg yàlla mën naa def ñu tàmbali ko courant bi aussi bi yoon bi tali bi tàmbalee jóge daara jëm Louga dañu ne dëkk yi jege 5 kilomètres des fois ñu defal leen ay piste yàpp naa ne Sele Ndiaye meeru kokki bi ci ñi ma ci njëkk a waxal la bokk ñu ànd ci di ci dox di ci dox ba agsi fii ñi ngi ci am yaakaar nag waaye mënuñoo am yaqin ne daañ ko defar wala duñ ko defar en tout cas ñaan nañ bind nañ indi nañ leen fii tamit ci sëñ bi ba sëñ bi gisee ak ñoom ndax ci responsabilité sociétale boobu dañu war a miire école bu Kër Ndiaye Bale looloo tax bi ñu fi ñëw ma woo sëñ bi ne ko nañ fa tasee buñ demee nga gën a dëgëral mbir mi ndax maa ngi ñaan pour ñu wàcce rang-rang bi mu agsi fii loolu aussi ñi ngi ci am Euh, yaakaar yàlla nañ ci yàlla defal jàmm bëgg nañ tamit incha allah bu dul semaine bii di bële sëñ bi ñu jël oto nga bu délégation ñaari nit wala ñetti nit ñu dem ndar Ageroute comme ni nga ko sàkkoo woon ñu dem ngir gën a waxtaan ak ñoom ndax ñu def seen surga yi ndigal pour ñu defar yoon wi ndox mi aussi wax ngeen ko ah ndox nag moom lu xaw a jafe la ci penku bi ndax soow bi sax moom am na ndox mu neex mais dëkk bu fekkee boo gasee teen mën naa am du neex te forage bu neex jafe jegewu ko ndox mu neex dana fa xaw a jafe waaye nag son excellence monsieur le président li mu bëgg mooy Lac de Guiers bi ñu dugal ko ci dëkk yi nga xam ne da leen a jege jàpp naa ne dossier Kër Soulay mi ngi avancé lu mu gën a jege rek gën ñu arrangé pour que mu mën a dem ci dëkk yi nga xam ne nii napp bi dafa amul ndox mu neex parce que tey bu doon bu fi defee forage mu neex jàpp naa ne daañ mën a def ay pexe wala ñu gas teen def ci pompe muy génne ndox loolu aussi ay pexe la ngeen xam ne kon seen doléance yi ngeen wax ñi ngi ci incha allah man ak sous-préfet lu ci war daañu ko def ndax loolu moo tax askan bi teg nu fi te nun tamit dañoo am devoir yu am solo ndax jamono ji xam ngeen ne élection yi passé xawoon na metti waaye askan wi gën ñu jàppale jàppale boobu aussi wax dëgg yàlla am na lu mu jur ndax damay bañ a teel a wax waaye am na décret bu génn ci président jël na décret nommé ay nit ci li ñuy wax conseil économique et social environnemental jàpp naa ne sama tur ma nga ca kon fan yu néew danañ gis liste bi ñu xam ne président cëral na Mbéjéen ndax jël na doomu Mbéjéen def ko conseil économique et social fële ca Ndakaaru ñu war a dem loolu aussi gën a nekk force doole joo xam ne nii danañu gën a may doole pour que soxla yi askan wi am ñu mën a dem ci ministère yi ak yeneen lijjanti ko loolu aussi dañuy wax sëñ bi ne ñaan yi ngeen daan ñaan jàpp na ne am na lu ci nangu yàlla def na président jël na décret def ñu conseil économique et social environnemental loolu préfet ñu ngi ko ci sant bu baax di ci sant aussi ñu fi nekk ñëpp doon ñu ñaanal ak le ministre Moustapha Diop mi nga xam ne nii wax dëgg yàlla xam naa ne lépp lu ñu am loxaam génnu ca ba yàlla jox nu ndomb googu dañ koy sant di ko gërëm di sant aussi euh, Mbéri Sylla honorable daam nga santal ñu ko gërëmal ñu ko kon pour bañ a guddal kàddu yi sëñ Abdourahim sa ñaan nangu na ñu ngi lay ñaanal yow tamit nga gudd fan am wér yaram ah ñun nag seen ndaw rek lañ boo ñu dee sonn askan wi moo tax ndax damay wax ne maire de ah, lu neex la ci dégg waaye lu metti la ci jëf parce que ah ku sa dépense doyul te sa njaboot yàkkamti mënoo am jàmm ba tax na ñi ngi sant bu baax a baax ci seen ñaan yi ak dal gi nga xam ne ni askan wi dal nañ ko ndax mbéjeen li ñuy dimbali mooy ñun ñëpp dañoo dal ndax xam na ni ñoo bokk bu fekkoon daluñu mën naa am bu dëkk yi tàkkee yee tàkk ñee ca des di wax wax joo xam ne nii jaru ko waaye loolu lépp da ngeen a ànd ak seen ngor ah ba ñuy ñaan yàlla yàlla dina indi courant bi indi yoon bi ndox mi tamit ñu am ci ay saafara kon foofu laay tëje samay kaddu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di bëgg nag ngeen ñaanal sous préfet ndax doléance ñeen fi wax réunion woo service technique yi ne leen li dëkk yépp di am Daaru Njaay Mérina Sarr ak Kër robdu danañ ko am mooy daañ fa yóbbu ñu pompe dëkk bi danañ ànd ak ñoom ñu bale dëkk euh, sapeur pompier ma leen remercier au passage danañ yóbbu gendarmerie ma leen di remercier au passage mais aussi hydraulique dana fa groupe aussi ndox danañ ko fa yóbbu la ca des nag nga xam ne nii moo cay suñu wareef lépp lu ñu ca man def nañ ko ndax euh, bis bi day suñu bis ndax mënuñu nit bu amee bis moom lépp loo ca man jàpp ca bu ko defee da da ko kontaanal waaye Cheikh Darou Assane Ndiaye mi ngi koy defal aussi jar na ko kon maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ba li nga xam ne nii teg nañ ko ci suñu loos ñu man koo àggale na mu gone jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf allahumma salli naa sayyidina muhammadin wa sallim